sama prise de parole li ma wax dafa leer hmm. parce que xam nga ñu bëri ñu ngi poser question ne pourquoi waa groupe Benno Bokk Yaakaar voté résolution bi. Hmm. j'espère que dinañ ci ñëwaat parce que ci résolution bi am na yu bëri yuñ ci war a wax. bien sûr. voilà parce que euh, ñun dafa leer. Hmm. ci résolution bi dans l'exposé des motifs. li tax PDS indi dossier bi ba mu ko indee dafa bind. ci li mu bind. ba mu accès en commission technique parce que avant muy àgg commission technique ak plénière hmm. dafa jaar quand même bureau de l'Assemblée nationale conférence des président door a ñëw commission des lois door a ñëw plénière te en amont texte bi presque ça été voté à l'unanimité loolu tamit dafa baax ngeen xam ko te ci bi parti bureau yooyu instance yooyu tout le monde est représenté hmm. quand je dis tout le monde c'est tous les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale hmm. dafa baax nit ñi xam loolu. Hmm. donc buñ ñëw ba plénière am leneen lu xew ñu foog ne euh, voilà dafa jóg ñëw rek plénière rek ñu voté ko non non ça c'est pas passé comme ça y a un processus assemblée dafa am nu muy doxee man li wax dafa leer waa PDS seen exposé des motifs dañoo citer nommément des sages. Mm-hmm. benn am teg ci seen kaw. ñaareel bi ñu am lu ñu jël teg ko ci suñu kaw candidat muy le premier ministre Amadou Ba. muy ñaari mbir yu bokkul. si ñoo bokk ah si ñoo bokk. que dañ ne dañu. ah ñoo bokk dañu corrompre et Amadou Ba. dafa ñoo bokk. parce que ñoom dañoo si ci mm. ñaari juge yi. Mm. ba pare ne liñ leen di liñ leen di soupçonné. Amadou Ba ñoom soupçonné nañ ne Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw. Mm. dañoo bokk mais loolu ñun en tant que parti au pouvoir en tant que groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. mais munoo indi exposé des motifs ñun bu ñu bañoon bu ñu bañoon voté commission d' enquête parlementaire bu boobaa nit ñi dañ naan ñii li li ñu leen xamal moo tax bëgguñ ñu voté mais bëgg mu leer setal suñu deru candidat ak juge yooyu tamit mun a setal seen der moo tax ñu ne nañ teg commission d' enquête parlementaire mbir yi leer ça c' est important lii moo tax ñu voté lii rek doy na pour ñun benn bokk yaakaar ñu voté commission d' enquête donc amul leneen et c'est ce que j'ai dit et c'est ça la vérité